mën nañ nangu li nga wax. mais c'est ça mais loolu yoon am sax mais loolu yoon. situation boobu kay mënoo ko tolleeg leneen. li gën ak li gën a gaaw c'était de faire en sorte que l'organiser ça avant le 2 avril moo gën te moo gën a baax Sénégal. mais mais mais Sada. mais après tout ci a tout en tout en violant le code électoral itam loolu est-ce que. mais yow dégg nga xanaa non ma ma ma terminer ma terminer c'est-à-dire dugal nañu ci guuta ba pare. c'est-à-dire ci guuta ba pare guuta mooy c'est-à-dire ci crise ba pare te nous peuple sénégalais ne sommes pas responsables maintenant en trouvant la solution il faut aller dans la solution la moindre cest dire que li ñu naan le moindre mal cest dire que le moindre mal mooy tordre la loi euh, électorale c'est moins grave que tordre la constitution mais mais foofu xoolal baax li ma la code électoral ak constitution ça veut dire non non non non non non du créé dara non laaj mooy ni ma ko waxee dans les meilleurs dans les mooy comme ni ma ko expliqué mooy lu gaaw te baax mais est-ce boobu noonu su demee ba nar a violer code électoral bi duñu dugalaat ci beneen précédent boo xam ne itam beneen présidence ñu dana mën mais mais violer code électoral kay bu baax violer kii kenn ku nekk mun na jël li ko ci arrangé mhm. mu teg ne lii mooy meilleur délai nangu naa mu ne ci li mu gën a gaaw mhm. mais na ci tegaat ni mu gën a gaawee mais na mu gën a baaxee mhm. parce que meilleur délai bi quand tu de meilleur délai da ngay xool délai bi ndax respecté na sa constitution bi la tënk ba pare meilleur délai bi da ngay xool ndax ñi ci war a bokk ànd nañ ci walla ànduñ ci meilleur délai bi da ngay xool ndax les moyens matériels sont seront disponibles. Mhm. mais li yëpp dafa bokk ci meilleur délai. bi ñuy wax meilleur délai faisabilité bi dañ koy étudier. Mhm. bi ñuy wax meilleur délai le matériel logistique et autres dañ ko ci boole. Mhm. mais les candidats également ñi nga xamante ne dañ ci war a bokk. mais meilleur délai bi yooyu yëpp da ciy bokk. donc du. waaw ah, ma ma def ko benn motion benn motion rek benn motion rek. du nit ñi naan mu gën a gaawee quel est l'important noo mën a justifier opportunité quelqu'un comme par exemple Aliou Dia Aliou Dia ñu baal ma ci tur quelqu'un comme Aliou Dia quelqu'un par exemple comme euh, le comment dirais-je nan la ñu koy le grand serigne de Dakar quelqu'un comme par exemple benn imam bu ñëw des imams et oulémas dans la recherche d'une date techniquement pour dem élection lan mooy seen opportunité ci dialogue Sada honnêtement dinaa la ci ma da laaj rek dinaa la ci nga wax wax naa sànq ne bu ñu xeebal kenn sa position. non xeebuñu leen de. non avec tout le respect non non non non non non non non non non non Jérôme Jérôme non ma précise dama ne dama ne avec tout le respect qu'on leur doit dama ne. ci recherche de date laa wax recherche de date laa wax. techniquement recherche de date. autorité compétente jàpp date pour dem élection. Ah. dama ne lan mooy seen opportunité waxuma ne dana non. waxuma ne amuñu xeebu ma leen de mais Sénégal bu nekk non dama lay wax Sénégal bu nekk Lamine Lamine pour te dire. te du toujours moo tax ma yow c'est-à-dire que qu'est-ce que ça peut. lan la mën a. ban impact la mën a am très bien techniquement laa bëgg a wax. xam nga techniquement lan la a am mais je les respecte tous. waaw d' accord waaw ci mën a am. xew bu ma ci kenn de. xam nga techniquement lan moo ci mën a am Lamine. c' est dañu nekk ci réew mi xam li réew mii di dox xam également réew mi seen i koom ak lépp nan lay doxee ñu war a mën a toog partager loolu ak président de la République ne ko ñun ci suñu xam-xam bu gàtt ak sénégalais de profondeur yoo xam ne ñun am nañu possibilité toog di waxtaan ak ñoom dafal lii moo gën ci ñoom. waaw Jérôme ñoom li ñu wax démb mais nañu wax démb. kenn kenn ki daan président toogal fii ba le 25 février 2027. non kooku kenn moo ko wax. te moom waaw non non moom laa lay laaj. impact la am. ci doxalin stabilité wu Sénégal. nga baal ma nga baal ma de doguma la. dama nekkoon ci oto démb. bi muy wax bi muy wax bi muy wax loolu. benn kii laa la non non non may naa la motion ba pare Lamine dama la may motion ba pare bàyyi mu yëgal may naa la motion ba pare non c'est mon ami ça c'est mon ami may naa la motion ba pare bàyyi mu yëgal c'est mon c'est mon ami Lamine xam nga lii laa wax sànq ma ne boo toogee naan kii nii dem foofu mënuñu apporter dara mais yow mi mën a apporter dara demoo fa kan moo tooñ yow yaa nekk responsable man dama nekk jàngalekat et je crois moi à la discussion à l'échange dama ko gëm et ma jàpp ni bu ñuy dóorante sax waxtaan dina génne loo xamante ne dina amal njëriñ nit ñi bu ñuy dóorante sax ah man ju ju je crois au dialogue je crois à la consertation je crois à l'échange également mm-hmm. ak fu ñu ko mënta defee nag ak nu ñu ko mënta defee mm-hmm. bu ñu toogee yuuxu génne armes yi danañ mujjee déggoo ci benn affaire loolu moo am solo ci toog ci dialogue bi mm-hmm. man bu ma bàyyee koo xamante ni ki jàpp naa ne bu fa demee du indi lu baax te man mënoon naa indi lu baax mu dem fa mais lépp lu fa am man maay responsable yi te jamono ji loolu ngeen def yéen seen i xam-xam ak seen xalaat jàpp ngeen que lu fa nekk dépassé na ko <laughs> mais bu ngeen fa demoon ngeen teg ko sur la table dina amal njëriñ Sénégalais yi mais aujourd'hui ce que vous avez fait Lamine je regrette na mais tristement tristement yéen ah tristement non non non non Lamine tristement yéen vous entrez dans l'histoire disant que dialogue bi amul njëriñ avec les 17 candidats yoo xamante ne c'est des candidats retenus bon ma leen nag ah, bu ma leen mais jàpp naa ne 17 candidats yu nekk yëpp bu ñu leen dajalee mun na am ne sax PDS lu muy am duñ ko am 17 candidats yu fa nekk xeebuma leen nag léegi ñooñu au nom de quoi ñu ne demuñ ci dialogue dialogue boobu valable wala dialogue boobu amul crédit la société civile nekkul benn camp. au nom de la décision du conseil constitutionnel. waaw d'accord. conseil constitutionnel boobu si c'est au nom de la décision du conseil constitutionnel moom moo ne toog leen waxtaan. Ah, enquête dafa ne retenez une date dans de meilleurs délais en concertation avec les autorités compétentes. Eh, autorités compétentes yi les autorités administratives mais lan la les autorités administratives ci lañ bokk. mais les hommes politiques également ci lañ bokk. considérant boobu hommes politiques yi mënoo génne Sénégal. Sénégal mënoo ci génne sëriñ si Sénégal mënoo ci génne partie bu gën a ndaw bu gën a tuuti. parti politique bu gën a tuuti mënoo ko génne ci Sénégal maître El Hadj Diouf xëy na parti am li ñu naan xam naa bu ma déggee dinaa naan dama ko xeeb mais parti am bi ñu naan moom kese moo fa nekk mais bu demee ci dialogue bi am na fa njëriñ la mu fa wax dëmb dégg nga ko. il est contre xanaa yéen yéen. il est contre l'amnistie. non yéen xam nga yéen da ngeen di jël xëy na loo xamante lii kese moo leen arrangé mais ñi fa toog wax loo xamante ne ni yéen li ngeen di wax ñoom la ñuy wax bëri nañu ñi toog ne président de la république organise les le deux ñu ngi ñi toog ne président de la république sénégalais yi li ñu bëgg mooy amnistie bu ko fi wax ay waxam leeral na ñu lu xew parce que sénégalais yi mënuñoo dee ñu yàq seen i alal yàq seen koom-koom ñu toog suba di ñu naan ay amnistie mais ñi ko fa wax bëri nañu mais lan moo tax yéen ngeen def focus ci ñoo xamante dañ ànd xëy na ñoom nañu seen xalaat la seen xam-xam la ñu jàpp ne président de la république bu demoon ba 2027 loolu moo leen gënal seen xalaat la ñeneen ñi jàpp ne président de la république boo organisé woon élection yi ci mois de juillet au mois de juin seen xalaat la yéen ñi nga xamante ne da ngeen jàpp ne techniquement constitutionnellement politiquement il est possible d'organiser d'organiser les élections le 2 mais ñëw leen ngeen prouver ko waxtaan kese la lii am mooy toog naa Ismaïla Madior Fall bu présider benn commission mu ne leen après le 2 la def élection ñu ne ko non non non yaa tele tele parce que xam kese la fay jàngale ñi am xam-xam ñoo nekk foofu ci am politique yi comme moom léegi bu toogee mu toog fa ak ñoo xam ne jàpp ngeen ni amuñu xam-xam wala jàpp ngeen ni militantisme moo leen fa yóbbu mais la Madior bu ko neexee mu proposé date bu ko neex ak ki la faute yéen ñi toog ne demuñu fa bu leen neexee ñoom ñi di toog naan date bi le 2 avril arrangé wuñu nañu xool koor gi nañu xool gàmmu yi nañu xool ainsi de ñu organiser les élections au mois de juillet ou quinze au 15 décembre bi ñu ñi nga xamante ne ñii xam nañu gis nañu seen candidat du dem muy PDS muy ñoom El Hadj muy ñeneen ak ñeneen ñu toog fa ne élection yi dañu reprendre le processus et la majorité bu fa nekk ñu d'accord ci loolu parce que dialogue tamit bu amee majorité bi fu mu demee foofu rek la ñuy demee même bu dee ay xel yu neuf ñoo fa tase ñi gën a bëri bu ñu toogee ne lii moo gën ci li ñu dajaloo fii. nañu appliquer loolu ci loolu la ñuy demee donc loolu bu xasee ba am la responsabilité n'incombe par à ceux qui sont présents mais plutôt aux absents parce que absents yi bu ñu toogee ñu ne woy mais ñun la ñuy retenir comme des candidats élections yi nañ ko def à date échue parce que ñu suñu candidature valide nañ ko ba pare te li ma la wax ci processus électoral bi quand on parle de reprise de processus électoral candidat amatu fa président nag mun na toog wax. xam nga waxam hmm? lay wax lii mun na nekk ak kii tel tel yéen a koy interprété noonu mais man dama jàpp ne processus électoral bu demee ba am on reprend tout à zéro kenn ku nekk day dem recherche ay parrainage conseil constitutionnel day def appel à candidature ñoom ñëpp ñu déposé ñu validé candidat mun nañ sax bañ a validé waat ñenn ñi nga xam ne demoon nañu. parce que xam nañ ne bu dee affaire bi jaar na ci yoon am na ñu bëri ñoo xam ñu ngi foofu waruñu mën jàpp seen candidat mais yooyu question yëpp ça revient. de donner la légitimité au président de la République de faire le report nga jël candidat boo xam ne dafa nekk à la prison man ba tey je me pose la question comment Diomaye Bassir comment euh, Diomaye Bassirou Diomaye Diakhar xaw ma fay comment il a fait pour signer son si man chaque jour je me pose cette question et je j'ai pas de réponse mais yooyu c'est des choses yoo xamante ne sénégal yi bu ñu ko bu leen ko leeralee man waxuma conseil constitutionnel du ma leen xasan conseil constitutionnel du ma ne ils mais dafa am loo xamante ne quand même la ci ñoom et erreur boobu est-ce que c'est fait sciemment boobu est-ce que par corruption lañ ko defee mais yooyu yëpp ay laaj la yoo xamante ne sénégal yi war nañ koo laaj ñu leeral. te leeral boobu. mooy tax suba bu ñu demee élection kenn du toog naan xamoon naa ko. wala waxoon nañ ko. déedéet xam nga mënoon nañ dem élection wax naa ko keroog ma ne bu ñu demoon élection le vingt cinq février Amadou Ba dafay gagner élection lan mooy xew bu gagné dañu corrompre conseil constitutionnel wala fichier électoral bi nga xamante ne dañuy jël ay nit ñoo xamante ne ñu ngi fichier bi sax gisuñu seen tur mënuñu voté mm. yooyu rek la ñuy mujj donc balaa ñuy mujj ci loolu nag ñu toog comme ni que président nekk di defe jamono ji lépp loo xamante ne ay lënk-lënk la ci fichier électoral bi ñu toog ne nañu dind lii nañu defaat lii xam ne bu ñu demee élection même bu dee am na ñuy kaas mais y a moins mal beneen bi wax na dañu bëgg intégrer Sonko et Karim Wade xalaatam la mun na nekk sax président de la République quand il parle de euh, de d'élection inclusive xëy na il fait appel à ça d'accord mais lan la ñuy ragal 17 candidats yi ci Karim Wade bokk wala Ousmane Sonko bokk lan lañ ci ragal Karim Wade mi nga xamante ne tout son dossier amul dara dara dara lu ci bon mais li ñuy ragal ku bokk ñoom kañ li ñu waroon bañ mooy ñu ne Rose Wardini mi nga xamante ne am na ñaari nationalité nañ ko génne mais loolu lañu ñu waroon xeex mais ba tey dëggoo fenn ci candidat yi jàll ku naan Rose Wardini war na génn dëggoo ko fenn et c'est grave ça. mais loolu ça c'est au de le décider. waaw mais mun nañ ko décrier comme ni ñuy décrier yeneen yi. bu ñu toogee naan fichier électoral bi baaxul xaañ nañ ma lii xaañ nañ ma lële ñu gis koo xam ne warta nekk candidat nekk candidat léegi loolu waruñ ko ko condamné waruñ ko ñaawlu ñu gis koo xamante ne kii war na nekk candidat te defuñ ko candidat. mais est-ce que loolu c'est la faute du conseil euh, conseil loolu la ñuy waxante dëgg

esprit sénégalais. moo tax léegi nag ñu ne la ñu ne la xoolal je continue toujours ci li nga wax ñu ne ko jusqu'au jour bi ngay déposer sa candidature. Mhm. déclaration sur honneur boobu boo ko defee. Mhm. sa candidature mun nañ ko valider. Karim Wade